international chargé du collecte de fonds pour la construction mosquée Sarsara en Mauritanie soxna Fatoumata Fall Lamp Maam Jaara moom ngeen di seeni ci suñu wet mu defar li nga xam ne moom mooy plan ànd ko suñu mbokku taalibe di Sëriñ Fàllu Kase bu ko defee ñu leeral lu tuuti rek ci wàll lu jëm ci liggéeyu jàkka ji incha allah kon soxna Fatoumata Fall bismillah jaaraama soxna jaaratullaa sëñ Saliou Mbacke yal na yàlla yokk ay leeram te taas ci barkeem Cheikh Mountakha mu sëñ Bassirou yal na fi yàgg te wér te neex lool ba wàcc ñun taalibe yi sëñ moo am na yàlla yokk ay leeram te taas ci barkeem sëñ Cheikh Jëmmu Fall mi fii jëmmi maam Cheikh Fall yal na fi yàgg te wér waaye Cheikh Mountakha naal yi mu naal yëpp liggéeyal ko sëñ Touba yal na ci am lu weesu njottam ba ci naalam bii ndax gis ngeen fii rek république islamique de Mauritanie Sarsara maître d'ouvrage bi di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké maître d'ouvrage délégué di sang bi di doomu Serigne Moutala di Serigne Sidi Mouhtada Mbacké yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér te liggéey bi sotti ak jàmm ba mu jël caabi ja jox ko Cheikh Mountakha mu sëñ Bassirou étude architecturale la d'un complexe islamique Cheikh Ahmadou Bamba nga rasool mos am na mosquée am na max dara am na hébergement cabinet style architecture moo ko doon defar man maay maîtresse d'œuvre bi liggéey bi nag tàmbali nañ ko ba nga xamee ni fi mu nekk nii kule daal bi moo ci des li wër jàkk ji yëpp kule nañ ko commencé nañoo defar éléments yi ak udd yi pour waaje kule dal bi waaye ci biir liggéey bi bëgg nañ cee def nga jumaa ji nii li ko wër yépp kule nañ ko mu des jëmmi jumaa ji ci kaw liggéeye guñ ko ak sóoróol bi mhm. kii max dara la man max dara sax sëñ Sidi moo tax ma xam ko ah, ndax mooy dafa ba mu fa doon jàng waaye ci cas nii la nekkoon mu bëggoon ñu jëmmal ci loo xamee ni bu ëllëgee ñu fay jàngal xale yi alxuraan ak xasida Sëñ Tuubaa kii nag mooy jumaa ji jumaa ji lii lañ commencé lii extension la pour jigéen ñi Mbàkke Balla sax bu ko defee ku mel ni soxna maam Isa Mbàkke axlu kafe ak mbooloo mi ci ginnaawam lu mel ni soxna maam jaaraat ñëpp rek ku lim juum ak soxna gàmmu mii nga xam ne fa yéene naa jàpp ci liggéey bi ak soxna yëpp rek boobaa ñu mën a jullee fii waaw fii mooy jullikaayu góor ñi fii mooy jullikaayu jigéen ñi bu weesoo loolu dafa am ñoo xamee ni tey jii fu nekk la ñuy bàyyeekoo bëgg indi seen addiye ñu bëggoon cee bàkkeelu tuuti ci français ak ci langue yi rek ñoom ñu xam li waral liggéey bi ci ndigalu sëriñ Mountakha Bassirou Mbacké jëm ci sëriñ Sidi Mourtada Mbacké pour le projet de construction d'un complexe islamique en Mauritanie mosquée Cheikh Ahmadou Bamba Daara Mahdara pour la lecture du Saint-Coran et des xasaayid de Serigne Touba ndigal de sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke in sëriñ Sidi Murtada Mbàkke for the construction project of an Islamic complex in Mauritania mosque Cheikh Ahmadou Bamba Mahdara for the reading of the Holy Quran and the Hasid of Sëriñ Touba ndigal de sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke in sëriñ Sidi Murtada fur das BAO project, INUS, Islam Mission Complexes in Mauritanian Mosque Sheikh Ahmadou Bamba, Mahdara, für die Lesung des Einligen Koran und der Chassaid von Serigne Touba. de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké en Serigne Sidi Moukhtada Mbacké para el proyecto de construcción de un complejo islámico en Mauritania Mosque Cheikh Ahmadou Bamba Dara Mahtara para la lectura del Santo Corán y los Hasaid de Serigne Touba. Ndigal de Serigne Muntaha Bassirou Mbacké à Serigne Sidi Moukhtada Mbacké Père il Poroghetto li constructionné di un complexo islamico in Mauritania, Moschea Sheikh Ahmadou Bamba, Mahdara, per la lettura del Santo Corano e dei xasaayid di Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba waaw sëñ Sidi yàlla na nga fi yàgg lool te ànd ak wér waaw yàlla nga fi yàgg ba dem ba joxe caabi ji waaw sëriñ bi nee dafa am commission boo xamee ni internationale la chargée des collectes de fonds banque islamique waaw mu nekk 122 475 dem SN 07 90 11 07 25 11 22 47 20 01 07 fii képp koo xam ne jël nga sa addiya dugal ko ci ah commission bi dina ko jot leeral sëriñ bi pour addiya ja nga fi joxe kii nag daa am yéene muy sëñ Fàllu am yéene mu nag ñoom suñu xam-xam suñu liggéey ci plan yi la ñoom ñu am yéene waxal ko sëriñ bi sëriñ bi wax ko nan lay def ba xéewal gi muy yéenee def ci liggéey bi ah mu egg sa saara. jéem bi yow. ah mbokk ñu ngi ziar ñépp di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal suñu bopp di ñaan it suñu borom boole ñu ci ñu Serigne Touba boole ci ñi muy liggéey la ndax Serigne Touba kat ñun njabootam lañu wante nag am na ci ñoo xam ne ñaare day doon ay liggéeykatam te bu koy def it du tàggu kenn day seet ka ko neex mu def ko ko. li ma leen di wax nag dama cee am man firnde ndax bi ñuy liggéey jumaa ji nga xam ne fi lañ toog muy Masaalikul Jinaan bis dafa am mbàkk yu fay waroon a soxla lu toll ci ay été ak ay échafaudage waroon dem Italie wuti ko yàlla def mu fekk ma wàcce ko ci Bourguiba bi bi mu ko wàccee ci Bourguiba ñu mu dox yam ci bi mu ñëwee laaj ma ndax da ci koy jaay ma ne ko waaw mu ne ma ah man di dama ko soxla woon pour jumaay ma salikal jinaan ma ne ko ah kon lay njaay mi du am waxaale ni dikkee rek ngay dollewaat seen boroom ñu jox la ko noonu nga yóbbu liggéey loolu nag laa leen bëggoon a baaxee ngeen xam ne Serigne Touba maanaam bu bëggee nga liggéeyal ko jarul gëstu jarul wanewu da dana la liggéeyloo te da nga ci am lu kawe sa njort ala waa yi rafet njort bi ñu sunu borom boolee ñu bokk ñu teew fii tey bokkit di wax lu lu ci Sarsara yàlla na yàlla defal sutura defal ko mboolem jullit ñi ngi ñi ngi sëñ bi nag di sàkku ñaan ci moom di ko sàkku ci Baye Fall yi ndax Baye Fall yi kat ñooy dooleel murit nañu sàkku Baye Fall yi ñaanal ñu ginnaaw bu ñu sëñ bi naan ñaanal la ba noonu jaay ngeen yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi